donc on te fait un gros coucou sa liggéey am na solo bu baax. Mm-hmm. Aïcha merci beaucoup Zeynab on te retrouve certainement lundi incha allah ci yeneen i chronique yu jëm ci wàllum TIC mën nañu enchaîner directement ak Xaadim. Mm-hmm. xooli tey lan mooy euh, wala kan mooy carnet de référence bi. Aïcha sëñ Xaadim. dañ fa seenee digtal euh, suñu tuddee euh, yoonu l'islam rek xel yëpp dafay dem ci moom mu nekk imam Malik lig di ko dalee ci murid Tidiane xaadir Laayeen dañuy jokk ci moom ngir am ci moom li nga xam ne tey ci moom ay information yoo xam ne euh, saa su nekk moom da koy joxe moom suñu suñu suñu suñu suñu prophète boobu noonu donc dafa am leen nga xam ne tey ji ñëpp ràññe woon nañ ko ci dundam ndaxte moom bëggoon na di fowee wàllum pitax ak tamit di ko yar waaye ca atum euh, moom bi mu amee li nga xam ne tey ji euh, fukki at ak ñeent jàpp dix ans moom dafa amoon benn question bi nga xam ne waajuram bu góor ko posé woon ne ko dama bëgg ngeen wax ma lenn ci euh, fixt léegi moom ak ay frère moom ndangul tontu donc mu doon mu nekk loo xam ne papa ji daal di koy am métit lu lool ne ko sa xel bi yëpp ci ay yarum pitax nga ko def donc mu doon benn élément boo xam ne ñu fas yéene ko découvrir avec la complicité de la régie après su ko defee suñu ñëwee daal di commenter. kan mooy Imam Malik. maam malik dafa nekkoon benn tànk bu doy waar bëggoon lool wàllu foowe ak yar pitax benn bés ci jamono yi muy am neuf jàpp dix ans mu toog ak ay waajuram ak ay frère am waajuram bu góor laaj leen benn question ci wàllu fiq ci àttey islaam imaam Malick xamul tontu li frère yi tontu ko juróom bu góor xas ko ci xas yu metti ne ko sa xel mi yépp ci pitax yi nga ko def moo tax jàngoo dara imaam malik merci lool ba juróom bu jigéen ràññee ko ci kanamam bi ñu fa jógee mu sangu ko solal ko yére tuur ko parfum ne ko dama lay yóbbu nga jàngi ci imaam yi nekk Medina imaam malik ne ko déedéet yaay bëgguma jàng woykat laa bëgg a doon ndax imaam malik ku neexoon baat la waajuram bu jigéen nekkoon ku muus ku mënoon naxtaan ak xale ne ko neex baat rek taxul kenn nekk waykat pour nekk waykat day laaj nga rafet tamit léegi li ñuy def mooy dangay ñëw ma yóbbu la nga dem jàngi te pourtant imaam Malik ku rafetoon la waaye waajuram bu jigéen noonu la ko naxtaane ba yóbbu ko ci masjidul nabawi mu nekk daara bu amoon juróom ñaari fukki imaam maanaam 70 yuy jàngale 70 cours yu bokkul bésu tabaski xale yépp ñibbi nekk seen kër yi imaam Malik gàddu téeréem ak bindeekaayam dem ci këru benn ci imaam yi ko doon jàngal kuñ naan imaam al-Zuhri jamono yooyu imaam Malik mi ngi am 16 ans imaam al-Zuhri waxal ko lu toll ci 40 hadis ak ñi ko solo ñépp maanaam chaîne de narration bi maanaam diw moo ko wax jëlee ko ci diw toppalante ko noonu. ba si muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi benn révolution xewee biir Medina am ñu jóg ngir jëlee fa gouverneur ba imaam Malik faraloon ak imaam muhammad al nafs al zakiya mi ko jiite woon nekk sët ci seydina Hassan di sët ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gouverneur bu Medina merci tax mu yónnee ndaw ci imaam Malik ngir mu laaj ko benn question boo xamante ni politique rekk moo ko lal question bi di góor gu ñu forcé mu fase jabaram ndax boobu fase dagan na imaam Malik tontu ko ni amul lenn luy dagan ci force ci fiq ak islaam li ko imaam Malik tontu neexu ko mu yónnee lettre ne ko bu mu jàngaleeti wala yëkkateeti kàddu yu ni mel imaam Malik tontu ko ni duma xam àttey dëgg ba pare di ko nëbbu gouverneur bi jàppalu imaam Malik tëj ko toroxal ko dóor ko dóor yu metti ba benn loxo bi mujj indi handicapé demoon na sax ba suy julli benn loxo bi lay yëkkati xalifa bi al Mansour ñëwal boppam ba Medina jéggalu imaam Malik xamal ko ni du moom moo santaane jëf ju ni mel ba ni muy génne àdduna ci bi muy am 83 jàpp 84 ñu ngi ko denc ci janatul baqi biir Medina ci armeel bi ñu denc lu ëpp ci saxaaba yi ak njabootu yonent bi jàkkaarloo ak almasjidul nabawi di jumaa ji mu doon jàngale ji mu doon jiite jumaa ji sallallahu alayhi wa tëdd ñoo ko gisandoo mu nekk euh, benn découverte bi nga xam ne jàngatal nañ ko ci ki nga xam ne tey ji moom mooy Imam Malik mais oustaz am ay laaj nga xam ne da cee da cee samp euh, di taxaw ndaxte dañuy laaj góor bi nga xam ne dañ ko forcé ba mu fase jabaram lan mooy atteem ci ak tamit li nga xam ji mooy lislaam ak ki nga xam ne tey jii moom moo war a euh, tàqale ñaari way denc yi ñu koy woowee juge mu war leen a mën a tàqale donc kooku tamit lan moo nekk àtteem ci ci lislaam bëggoon naa tamit su ko defee nga mën koo baaxee li nga xam ne tey moom moo nekk euh, internet yi ak ak tamit les téléspectateurs parce que ñu bari dañuy jaawale euh, ñu ne sëy fi ñu ko takkee woo ca jumaa lañ ko takkee baa ci jàkk donc waruñu ko tasee ci biir tribunal oustaz ah, ma dem na fi mhm. maa ngi nuyu bu baax di sama waa ji bu baax a baax euh, xam nga cummikaay daa baax ci làmb mhm. day tax ki ngay bëreel fitam dem mhm. waaye day tax yow ci boppam yow mi sangu am fit xam nga sanga daanul kenn waaye dina dalal xel dafa bokk ci ñi nga xam ne suñu ay cumikaay lañu mooy euh, Mamadou Yatta Saay borom ak waatera Mamadou maa ngi lay nuyu di la ziar mhm. maa ngi lay wàcc sa wàccuwaay teranga yëpp jot naa ci ci barke mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa gis nga euh, sëy mhm. aka doon neex bu ñu demee ci jumaa wala fi ñu koy defee di xutba ñaar ñi ñi maye toog boo demee ci biir xutba bi imaam dafay wax ni fa imsaakun da ngeen di ànd bi maarufin ci njekk aw tasriixun wala ngeen tàqalikoo bi ixsaanin ci rafetal xaw ma ban réew mais réew mii di Sénégal tàqalikoo tàqalikoo fi tàqalikoo ba rafet gisuma ko fi hmm. reer ba suur ndaw si defal la reer nga naan meew pare ni ko sa reer bi neex na sa soow bi neex na waaye daal dama laa bëgg may may baat tey mos nga ko dégg jëkkër ak jabar ci Sénégal mooy réew moo xam ni bu ñu tàqalikoowee dañoo foog ni noonoo moo ci war a topp gis nga bu ay doom euh, doxee seen diggante fexe leen ngeen rafetal seen ànd parce que ñaari tàqalikoo ñoo am benn Ibou dafa am jigéen joo xam ne bi ko yàlla bindee ba ni ku bëgg danga naan man Bàmba ni man man dama naan man mais ku manam gën a jug ci yow lay mujjee Ibou danaan man ndaw si day jaar ci sa loxo par force ala kulli halin lekk sa can bu ma nee man day jaar ci sama loxo par force day lekk sama can mais bu Bàmba nee man kii koy suul mbaa mu suul kii yéex am soxna par exemple nañu dem daanaka ba toll ci ay cinquante soixante ans di soog a am jabar xanaa ñoom bi ñuy wax man dañu ko woyofal non ah waaye fa lu ko xam nga lu tax. mooy tey kenn ku nekk li kulli shay'in ajal. lépp loo gis dafa am ab. dëgg la cest à léeg-léeg nga gis jigéen. ay xaritam di sëyi. baat baatu sëy neexu ko de mais li ko neex mooy euh, euh, euh, madame Nangam. heure ménage heure ménage. Hmm. ak ak yére yi koy solal mu toog ay xaritam solu. Hmm. loolu kese moo ko ci neex léegi buy dugg du duggee mbëggeel day duggee amour. benn benn benn benn benn option moo ko ci dugal. bu demee un mois deux mois sentir lu du fii laa waroon dugg. Mhm. moo tax bari na jigéen jooy dajeel. Mhm. ni koy yow Fatou dama laa gën a gis. Mhm. mu ne man de man ngi sama kër borom kër ngeen <laughs> dajee ñeenti fan juróomi fan mu téye ci loxo benn xale. an sa nijaay mu ne moo delloo naa ko ndeyam ak baayam fekk yooloon si. dëgg la ça veut dire Bamba xam nga luy war a tas. Euh, bu fekkee ni ma njëkkee ci tribunal. ñaar ñooy ànd ànd boo gis ñaar bu ñuy ànd ba kenn sentiratul sa morom nañ profité tas ko. parce que bu boobaa alxuraan dafa ni wa jaala maay def man yàlla hmm. baynakum seen relation ma mawaddatan cofeel wa rahmatan ak yërmande mbëggeel ànd cofeel moo koy njëkk a lal yàlla nee na bu cofeel ñëwee nee na xam nga ci kan lay bàyyee ko ku góor gi ci ku jigéen na bëgg jëkkër ba ñàkk sago yàlla nee na ma jël yërmande jox ku góor ki ndaw si na bëgg rek buy bëgg may may indi yërmande jox ku góor ki hmm. mooy waral jëkkër ak jabar néew ñuy xuloo parce que mënta ñàkk mm. na ko jigéen ci bëgg ñàkk sago jigéen bu bëggee maîtriser jëkkëram day veillé ci moom boo xoolee léegi lu ëpp sa jëkkër bàyyi la fi dem li ngay sëgg ci sa téléphone mooy bari mm. li ngay nekk ci tiktok bi mooy bari day dem ba dootul yëg boppam ci yow mm. bu dajee xale bu yor téléphone simple rek yow mën ngaa ñàkk waa ji muy benn am nañu droit tasee ko tribunal parce que xamul tax ñun ñoo leen ci dugal ndax ñun ñoo wut certificat de mariage bi nu wutee certificat de mariage certificat de divorce doo ko amee ca jumaa Hmm. certificat de divorce fan nga koy amee du tribunal hmm. te comme ñun dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne dañoo wax ni donte am nañu indépendance mais tubaab yi ñoo ñu coloniser ba tey hmm. ci ci ci même bu dul euh, wax mais acte nga dem yóbbu sa këyit pour nga bëgg certificat de divorce pour sëy keneen dangay dem tribunal ñu dindi sëy boobu te sëy bi itam gis nga kii àtte yàlla dafa ni alaysa laahu bi ahkamil hakimin ibu gis nga ñi gën a gaaw a dem safara ma wax la ñan la ñi gën a gaaw a dem safara politicien. Mm-hmm. wala politicien la ñuy wax. politicien ñi gën a gaaw a dem safara politicien. Mm-hmm. ñi gën a gaaw a dem safara àttekat. ñi gën a gaaw a dem safara douanier mm-hmm. ki gën a gaaw a dem safara policier ki gën a gaaw a dem safara gendarme ki gën a gaaw a dem aljana ñoom ñooñu mais oustaz euh, kan moo euh, euh, njëkk a décrété ni bu ñuy takk góor ak jigéen bu ñu leen di maye mm-hmm. aajowul ñuy dem ci jumaa ji toog mm-hmm. déglu xutba bi kan moo ki indi loolu ci ci ci aada kenn eh, eh, daf leen a neex mu ngi mel ni ma ma tëb tëb rek laaj na li la ku indi mu caat ci añ automatique yow mi jigéen da ngay xalaat parce que day ñëw au fur et à mesure ci nit ñi yëg-yëg la rek. Mhm. am na foo xam ne tey maa ngi fàttaliku ay taalibe Seex Béthio. Mhm. yu ma dëkkaloon ñuy def réception. ma ma taaj ku góor ki taaj ku jigéen ki depuis boobu mu réussir réussir boo xam ne ñu baree baree bari daf leen di jaaral ñu ñëw seeti ma ne ma oustaz man dama am réception. Mhm. man daal bu ma sañoon da nga ciy ñëw parce que damay jël micro jox soxna si. jël micro jox jëkkër ji man ma téye micro wax leen sartu sëy njariñ li ci ne sag bi biñ sagu ñoom ñaar ma ndaw si fii nga toll bul yaakaar ni sa taara tax nga jar de jigéen toll na ni yow ci ay at ma nga ca séjour laa toog kenn bëggu ko bëggul kenn mm-hmm. jigéen toll na ne yow ma nga ñu tëj fi mu toll ni dix yoo xam ne kuñ tëj taloo mariage mm-hmm. jigéen toll na ne yow bantam la yor di doxantu mm-hmm. yooyu yëpp bu la ci yàlla génnee nag yàlla defal la ba nga mel nii nga mel bul foog ni la nam moo dara am na loolu nam mu de ni nga mel lépp yàllaa ko def ci yow wax ko ku góor ki mu dégg loolu moom itam ma tourné ni leen bis bii de leen ko bàyyi xel neex na lool nga woo say xarit kii woo ay xaritam ñëpp toog daje te ibu sëy du lu ñu caaxaane de déedéet sëy bu yàllay takk kaw asamaan mm. ibu sëy boo fi gis boo fi gis daal sëy boo fi gis yàlla nga koy takkee ci aras moo tax léeg-léeg jigéen tas tasaat tasaat ñu ni bëggul sëy xanaa kon yàlla muy yàlla yàlla muy dogal sëy ci kaw asamaan du découragé léegi léegi oustaz xale yi toog ci kaw euh, lal yi parce que dama seetlu mm-hmm. ba ci man mi euh, bu ñu lay takk da ngay toog sa kaw lalu yaay muur sa kol yor sa kurus mm-hmm. di wér ne da ngay xaar góor ni jugee jumaa loolu est-ce que farata la déedéet du farat acte la xam nga ma wax la farat mais acte boobu est-ce que est-ce que c'est reconnu est-ce que l'islam nangu na ko auprès de Dieu non l'islam l'islam du détail l'islam dafay wax lii laa bëgg yàlla bu doon buur buy dox la du geestu yàlla bu doon buur buy dox la du détail benn kàddu lay wax pare ci mooy euh, sëy mm. farata la farata bi mooy yow bu dee mosoo sëy di di jàng amoo droit maye sa bopp ca mm. farata ya sëy wéy jur noo lay maye bu fekkee ni mës ngaa sëy ba tas bu la neexee nga xool ku la doy mm-hmm. moom mu xool ku ko doy ñu nekk ay seede parce que l'islam seede yi farata la ci guro bokkul ci sëy du farata du dara can moom mooy farata ñu ne ndaw si jox nañ ko can nanga ma da ibu mm-hmm. gis nga ñu bari nañu def attention buñ la joxatee can lu bari mm-hmm. bul ko tiitaroo ci réseaux sociaux yi boo ko defee rek bu ci yàlla génne loxoom balaa ren di bu dee un million la la waa ji jox ren di déwén boo bëggee da ko ne daf koy def ci xel mi danaan kii kum fooyu